Aussi def de dañ fi ñëw pour jéem a créer une école moderne de modèle plutôt de citoyenneté c'est-à-dire école boo xam ne dañ ko bâtir ci xam-xam bu leer mais xam sa bopp xam ñi nga dëkkal aussi ak xam li nga war a jëriñ li nga war a jëriñee sa réew waaw xam sa réew jëriñ sa réew en quelque sorte te loolu lan moo ko indi Wow, le ils ont constaté que dañu constaté que Dao, par exemple l'école école dans certains endroits du Sénégal aussi bien à Dakar que dans certains points du Sénégal a a une scènes de violence violence ont amené, par exemple eh, eh, des élèves nous donnons accès ak professeurs professeur parce que nous def examen blanc Nous di parce que euh, dañ leen imposer xawma devoirs, devoir et cetera ñeneen tout simplement parce que peut-être avec la pandémie bi année bi dafa choses bi ñu ñu gaaw ne ne euh, masque yi doyal nañ ci et cetera nga gis ñu takk ko loolu ci Fuuta laa ko gisee surtout ñu wane ko ci dans les réseaux sociaux voilà xam ne peut-être comme si comme quoi que daal li ñu defoon élèves yi retenir leen fii le plus longtemps possible neexu leen te xam nga année scolaire nu mu demee daaw pratiquement même les vacances yi doon am ay vacances Noël vacances Pâques daanaka amul voilà donc xam naa aussi bokk na ci li xaw a énervé yi quoi. parce que en réalité c'est c'est des gosses de 5ème, 6 sixième maximum seconde hein. bon les profs les élèves de terminale n'avaient plus le temps là voilà ah c'est un lycée de la banlieue bon xam ne mu ngi depuis 2010 collège là-bas, dañ ko transformé lycée mais depuis lors nous mu ngi progressé xam nga fi Kermasar, dafa endroit où xamné ñep ñëpp dañ fiy dëkk si té des ñëwé dëkk si finalement da ngay ñëw ànd sa etc. etc. de sorte que bi ni ngay gis ni lycée bi xawna touti ni ci Dayo, mais am nañ plus de 2000 élèves hein. plus de 10 terminales et dans les classes de toutes les séries hein, L prime L2 S1, S2, tout ça, c'est donc un vrai lycée moderne. Sous notre dernière assemblée générale, ce me propos ci c'est ce que voilà Moi, di parents d'élèves élèves bu une école d'avoir y a yaru ba école généralement peut-être yar bi élémentaire un peu dans le moyen mais boo ñëwee au secondaire day fekk ne xale bi dëgër déjà waaw li mu am am déjà professeurs yi ñi koy les dañ deux heures ou trois heures par par par semaine administration bi peut-être mooy gën a xam élève bi ne professeur bi donc ca yar ba ca kër ga la war a nekkee et puis du du xaar ba mu ñëw secondaire sax mais yar ba ca commencement ba la quoi ca xale ba ba mu nekkee ndaw nekk euh, préscolaire élémentaire et moins voilà mais bu ñëwee ba secondaire rek xale déjà dëgër na li mu war a xam xam na ko li mu war a am am na ko donc yar bi foofu lay commencé donc ñuy wax parents yi ñuy euh, jël seen action di ko féetali ci boor boobu mais nag. dañu constaté ne presque euh, ñu bari daal dañoo démissionné dëkk bi tar na tar bu nga xam ne gars yi dañuy xëy am lu ñu daw wuti kër ga daanaka xale yi rek a fay nekk laissés à eux bon lu nekk fay xew mais nag xale mooy alal bi gën a rëy ci ci famille donc dañ ko war a suuxat dañ ko war a toppatoo boo ko boyalee rek da nga yow da nga koy yàq te yow tamit da nga yàqule donc ñuy wax parents yi ñu gën a veiller à l'éducation de leurs enfants COSYDEP moom li leen fi indi bari na moom euh, <laughs> waaw ñoom ñoom ubbi tey jàng tey ci indi na leen fi mais bi ñu fi ñëwee defe naa ni euh, sëñ Cheikh gis na ni wax nañ ni ibbu tey jàng démb waaw loolu loolu aussi nekk na lu am solo je je je crois bon euh, mais ku si COSYDEP bokk na ci li leen fi indi tey programme boobu ñu lancé mu nekk programme boo xam ni li ko tax a jóg mooy que gone yi bu ñu jàngee ñu boole ci njàng mi. Euh, waajal leen ba ñu nekk ay citoyens yoo xam ni ay citoyens modèle la ñu nekk parce que nag euh, bu ñuy wax jikko ju rafet da nga koy teel a suuxat ci ndaw donc je crois que te gis nañ ni euh, école dafa nekk foo xam ni fu am solo la xale bi dafay jàng xam-xam mais dañu war a def aussi ay jikko ci moom ba nga xam ni bu ñu paree ci moom day nekk nit ku mat day nekk nit ku sotti mag ñi loolu lañ doon wax nit ku sotti waaw mooy nit ku sotti mooy nit koo xam ni sotti nañ ci moom Euh, ay jiko yo xamni ne rafet na ba mom ci boppam mo meuna jël jiko yo soti ko ci keneen alors je crois que lolu mom moy euh, objectifu programme bi mu nek programme bo xamni euh ndaw yi nga xamni dañuy jang ñom ñoo ci ëpp solo waye jangale kat yi dinañ ci duggal seen loxo personnel administratif bi ñi jité école yi nañ ci duggal seen loxo mais ñi nga xamni tamit ñoo nek ci pénc mi euh, quartier yi bàjjanu gox yi ñëpp dinañ ñëw bokku ci parce que boko ko xol dañuy jéem a saytu yan pexe mooy nekk pexe yu gën a wóor yu gën a baax ba nga xam ni bu ñu ko defaree defaree dinañu gën a mën a gën a dëgëral taxawaayu xale bi ci biir école bi mais ci biir pénc bi tamit ba nga xam ne bu ñu paree ci moom dafay nekk koo xam ne wax ju rafet rek lay wax wax ju jekk rek lay wax lu yiw rek lay wax te lu baax rek ci moom lay jublu te loolu nag wax dëgg yàlla bu ñu delloo ci suñu aada suñu cosaan dinañ ci gis ni am nañ ci réeruwaay bu wóor a wóor a mais boo xoolee aduna aduna bi tamit muy doxee da gis ni dëkk yi nga xam ne dañoo gaaw ay jéego ci ci euh, ci émergence bo leen waxee fan ngeen jaar dañu ni mais dañoo simplement suñu ay ay ay ay xale dañoo jël xale yi fa tey jii boo Malaisie nga Singapour euh, nga Chine Euh, nga dem foo mën a dem ci dëkku asiatique yi dañ leen ñun richesse bi ñu njëkk a jàpp ni mooy richesse bi gën a wóor mooy doomu aadama donc mais doomu aadama boobu pour mu nekk richesse il faut nga toppatoo ko il faut nga gunge ko il faut nga def ci moom yenn jikko yi nga xam ni boo paree ci moom lépp loo ko dénk ni mu ko war a doxalee dina ko doxalee noonu donc je crois que kon programme bu am solo la boo xam ni pour le moment juróomi lycée la mais mëbët bi mooy ñu dem ba mu matale euh, école yi ci Sénégal yëpp ba li ñuy wax citoyenneté ak civisme nekk loo xam ni dafay dëgër ci suñu suñu ay ndaw ñu am yaakaar ni buñ ci paré ñooñu mën nañ leena a dénk lu ñu mënti bëgg lu mu mënti doon mais dinañ ko téena mo rek wa projet bi mu ngi tudd LM2C LM2C ñu ngi koy dàkkantale lycée modèle de la citoyenneté et du civisme. lu muy wund moy eh, fi koy bind ñu ngi joggé ci violence yi amoon ci biir Sénégal ci mois de mars violence politique yi xewon mais aussi ñu ngi ko bind ci cadre eh, violence yi nga xamantene ne na ci année scolaire bi ñu génn ci eh, école yi ay élèves yi di songu sen professeur élèves yi di xotti sen blouse ak di xotti sen cahier kaye ñu ne nag euh, violence bu ni toll euh, pour ñu indil ko tontu mënuñu ko jaaree kër ci école ci njang ak njangalé wa ci lañ ko bindé nak ñu ne nag euh, ci lañu amé partenariat ak ce qu'on appelle l'ambassade du du Portugal à partir de d'un fonds bi ñuy wooyee fonds des petits projets ci lañu joggé won nak nag ñu ne lii peut-être doole ji néew na mais ñu choisir 5 lycées yu Dakar moy lycée bi di Kër Massar lycée Seydina Limamou Laye lycée des Parcelles Assainies Abdoulaye Sadji ak Seydou de jël message jam message euh, dindi ay message respect ak si professeur message ak l'autre respect ki message mag respect sa morom ñu jaarale ko ci lan ci ay euh, comme TikTok WhatsApp statut ñu jaarale ko ci véhiculer TikTok professeur buñu buñu TikTok wut TikTok respect plutôt respect de l'autre statu jàllale message yi ba nga xam dina mën a tas waaye du loolu rek ñu ngi koy jaaree aussi ci ay activités théâtrales parce que xam ne ñëpp a bëgg théâtre ñëpp koy seetaan di ree ñu profité jàllale ay ay message dina am tam tee débat tee débat ñëpp toog ñu waxtaan ak seen professeur ñu wane ne ñoom ñëpp professeur bi c'est un frère d'abord wala mu waxtaan jege leen voilà ñu waxtaan indi communication nous ñu nous consolidons consolider messages yo xamni ci mujjantal nous sax dañ ko jël ñu bind ko ci miiru école bi arbre élèves bi ku nekk école message comme ça mu durer quoi.